génn àdduna. maa leen di fay bu baax. ki nga xamante ni moom mooy Ambroise Gomis génn àdduna nekkoon ngeen ay jegeñaaleem daanaka sax xëy na mun nañu wax ne liggéey ngeen ak moom tey mu génn àdduna ana yen kàddu yu témoignage nga fi. Euh, tey moom du bésu tiis la c'est vrai parce que Ambroise euh, mun naa wax ne su ma ñëwee di ñemee jël micro di def ay émission télé ñemee show business yàlla ak moom la euh, daf ma gis may xale kenn xamuma tekkiwu ma dara mu gëm ma mais ma doole ñoo na ba sama kër yaay ne ah xale bi am na dara man daal kii daal sama rakk la euh, bu ragal dara euh, Positive Black Soul suñu amee contra yàlla ak moom la

ci émission am la génération 80 dans les années 90 aussi ci le 92 la manière que a jox émission mu ne ma yow yaa koy animé tey Mon ne ma ma ne ko mais grand mu ma animé émission bi tay je me retrouve les samedis mais à émission RTS dafa mel ni mission la ma confié woon mën égal. donc euh, te lu luma lu ma mën ci mom ci ay bax bax artiste bu mag boo gis ci Sénégal mun la la seede lu ko ëpp donc euh, voilà loolu laa mënoon seede ci Ambroise Gomis. tey nemmeeku nañ fi li nga xamante ni moom mooy coloré ndax bari na ay artistes yu xamante ni kii di awa kii di nga xamante ni mooy Ambroise Gomis ñoo tax tey Sénégal gi waxuma la Sénégal mais partout dans le monde ñëpp xam leen te tey gis ñu seen teewaay ana tey lan ngay message ngay lancé ñi nga xamante ni ñoom ñooy artistes via vis des animateurs ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokkul liggéey bi. asalaamaaleykum je crois que Ambroise lépp lu mu mën a wax si moom defe naa nit yi wax nañ ko Ambroise bon suñu nijaay la woon suñu mag la woon suñu xarit la woon homme de culture la woon homme de média la woon ñëpp xam nañ kuy Ambroise Gomis di ku ñuy présenté xam nga nit ku baax la woon xam nga nee nañ ku ku génn àdduna rek gars yi def la nit ku baax mais di li mu génn àdduna moo tax parce que c'est la vérité c'est parce que dëggantaan nit ku baax la woon ni ku baax la woon nit ku am yitte ñun en tout cas ñun si suñu histoire ñun en tant que Positive Black Soul bu fi Ambroise nekkuloon de goo mën a dinañ am fu ñu egg quoi wala bu ñu doon dem tamit duñ daw ñu sole ni bokk na si ñu ñu njëkk a gëm te moom moo ñu njëkk a à la télévision bi ñu ñëpp di rejeté moom moo ne ñii dama leen di kii parce que il y croyait daf ko sentiroon mu appuyé ñu mu gëm ko te bu weesoo loolu dañu dem ba am ay relation xarit ay relation neveu à tonton ay relation grand frère petit frère man yàggul rek seeti naa ko dem këram boobu doxagul ñu toog waxtaan waxtaan bu rafet xam nga il était content et triste en même temps parce que mi ngi ma doon wax dëgg yi waaw ah, da nga ma bett bett bu rafet parce que gisuma kenn loolu rafetul nit ça veut dire wala lii rek mooy dëgg ñu ñëpp dañuy dem nit boo seex ak moom yenn ya boo la amee yenn jaar-jaar yi gorel quoi gorel gorel ak ñii soxlawuñu dërëmu kenn fii kenn soxlawul dërëmu kenn kenn sax am lu ñu soxla yëg-yëg ak yéene bu rafet waaw kóllëre quoi waf jëmm ji moo dem mais en Brésil la waaw nañ ko ñaanal rek Moussa <laughs> nañ ko ñaanal ko yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana yu gën a kawe yàlla mañ bu ko rek àllaaxira ñu ñëpp ñu daje foofu ci kaw fu ci àjjana ca noog leeru ak jëmmu ngën si min def sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy Sénégal yëpp spécialement sa famille sa femme Viviane ses enfants juniors toute la presse sénégalaise et le monde entier ak sénégalais foo la mënti nekk si diaspora maa leen jaale place de bu ñu ko fàtte si ñaan jaajëf merci waay. Tay jafena ngeen sàddu sànni ay cadeau ci ki nga xamante mo fi jógee di Moussa Gomis nekkoon fi ki nga xamante ni dugal loxoom ci yenn yi nga xamante ni daan na am fii ci diwaanu Sénégal rawatina lu ci mel ni élection Miss ak li nga xamante ni moom mooy wàllum styliste ak modèle ak li nga xamante ni moom mooy wàllum presse ndax gisoon nañ ñi nga xamante ni daan na ko yëngoo fële ca diwaanu RTS ak ndaw ñi nga xamante ni néew na tey nga dem ci rédaction yi tey wala kër yi nga xamante ni kër taskati xibaar la te fekk ko fa ñu xamante ni jaar na ci loxoom tey mu génn àdduna tey ana ban témoignage nga ñuy defal ci ki fi ak ay kàddu njaal tey bés bu naqari la ñu am neexul neexul pour ñëpp neexul pour le monde de la culture parce que tey Ambroise ñu bëri dañu ne styliste mode ba ci musique tout ce qui est divertissement da ko doon laal tey témoignage yu déggati bu euh, bu IBS rek wane na ko nee na zéro franc la amoon suñu amoon problème pour yenn yi te Ambroise lañ doon ñëw mu jox leen ñu dem mm. te Ambroise